c'est un Sénégalais il est au pouvoir depuis 2012 si la constitution lui permet de se présenter et si lui il le veut personne ne doit l'empêcher de se présenter justement il a dit que du ko defaat constitution bi la ko ci loolu su dee nee na le débat se pose encore du ko defaat il faut que les gens se tiennent à cela mais si demain il dit qu'il veut se présenter parce que il voit que la constitution lui permet benn ëtt la ñu may Sénégal mu saytu ndax mën na ko wala mënu ko il faut qu'on apprenne même soudé c'est avec violence à accepter nos institutions. malgré la parole malgré les violences dépensées le conseil constitutionnel lu muy jëriñ. waruñ faa yegg sax. non dañ fa war a egg. le problème devait être réglé depuis très longtemps. non non le problème est réglé xam nga en matière de droit. Mm -hmm. président Macky Sall avait introduit cela 2016. Euh, 2016 ci référendum bu muy def référendum. conseil constitutionnel dindi ci benn disposition tey disposition boobu ñu ci dindi permettre na ko effectivement soo defee analyse juridique de la situation il a trois à un deuxième mandature de cinq ans parce que mandat wu sept ans bi bokku ci mais loolu moom la dépendre. lan moo ñu wutale ak Guinée. ma ne Alpha mi ko def. gis nga ni mu ni mu mujjee la moo ñu wutale Alpha Condé la constitution ne lui permettait pas la c'est différent Macky Sall la constitution à la lecture de la constitution juridiquement permettre na ko lan la ñuy wax moom moo waxoon ne deux mandats lay def su ko waxoon waxam la moom mais c'est pas la constitution du Sénégal Barthélemy Diaz mhm. taxaw na mu ne Macky Sall am na droit am mandat Ousmane Sonko lui-même l'a dit non xam nga nag les hommes politiques il faut <laughs> qu'ils restent un peu constants ah, au même titre que tout le monde ah man dama jàpp Euh, tey jii euh, président Macky Sall su décidé ne dafa war a présenté wu am nañu tribunal am nañu ëttu attekaay bu nga xam ne moom moo ko war a atte